Goodbye.

moo ko xewal daawul ndox yi moo fi xewal sa kër jañam moo nu tere wuyu dina moo fi si wàllu baatu si kar laa ilaaha illallah Cheikh Ibrahima ana soppe yi noonu jamay mama dama dama boole faraxati ca njarleem daa bay maam say njaay daa bay maam say njaay waa ana yaay faani ana yaay faani ana baay faani si ma sa jaar sama maam damel bu si ma sa jaar sama maam la yéey Cheikh Ibra Fall bu la neexoon nga seeti nguur wallaay ndeysaan damel amari ngoone sobe waccal waccal damel maasa mata ise jey fatim pemda shirafa sobe mam shiray ma barke flendi damel amari ngoone sobe damel sambaya sobe mam shiray ma barke wallaay ndeysaan ñii la meeru ca Thiès gaay samba yaaya la ca demoon daal te bañ lu ñaaw rek a demoon Cheikh Afar cay seen bi maam Chamaay ma faal lépp ba bi bëri di Amadou Fall Seydou Ndiaye bëri jëmee ma jàngal kuy bàyyi fan jëma taxaw yéen ba tàggoo Dan dag mi Mbàkke waaye joxuma la sama ngor Sëriñ Tuubaa ni ko lu tax lu tax waaw yàlla nga defaat dëgg mu ne ko jébbalu naa jox naa la leen waaye Mbàkke ba la sa yaay sama sëriñ lenn rek sama ko joxe ko ko ak yow dégg ngeen deret jaa tax lii ma la limal ay maamam la takka joor bu joxe lépp nag daal ne ko waaye joxuma la sama ngor Serigne Touba ni ko lu tax mu ko moom laa fas yéene ànd ak yow xam nga kan mooy Serigne xalal faqiiro manul mbakiyo alak maram ay sak sadio am jaara bu sa mi ci Porokhane mbooloo mi kuy góor maa ngay jigéen waaw mu mel ni pare bi mooy door ak si suma mbokk Ndiobène nga sëñ Pape ñu ngi lay ziar di ñaan yàlla na yàlla barke. Chamatamba ay sëriñ ñi eh, mooy ma di man seen Anta Mbacke borom loxo ci ko ñu magal bàyyi sëriñ Saliou Mbacke sëriñ Saliou Mbacke borom xel ko jaaga sëriñ Saliou Mbacke borom daaray lagal sëriñ Saliou Mbacke bàyyi soxna Anta Wàllu bàyyi sëriñ Jilim Saliou jërëjëf ana soppe sëriñ Saliou borom gotem mbuur eh, borom jàpp daara bilaagal borom sel kom jaaga borom daaray umul quraan borom daaray alimul xabiir borom ñaari daale joga bu bay saal ana soppi sëriñ Saaliw islam do fi naw mi musul ba xabare ma talal loxo ba woon ni ma jaar naa la sëñ bi sëriñ Saliou Mbacké ñibbi naa. ay eh waay. an soppee sëriñ Saliou.